ma jox leen situation bi si téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti test yu ñu def tey juróom-benn ñoo si positif bon ñoom ñoo am jàngoro yi muy juróom-benn yoo xamante ne ay cas yu ñu doon suivre la ma yëgal leen itam te si bésu tey bi fukki patient yu ñu hospitalisé woon wér nañu tey danañu génn hôpital tout ñu yëgal ne patients yi ñu hospitalisé ñu ngi yëg tan bu baax ci bésu tey bi ba mu commencé ak léegi ñaar téeméer ak juróom fukki cas la ñu déclaré fii ci Sénégal ci ñaar téeméer ak juróom fukk yooyu téeméer ak ñaar fukk ak ñett wér nañ ci ñaar décédé ci kenn la ñu évacué bond ak téeméer. ak ñaar fukk ak ñeent ñoo nekk suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ñu seetlu ne fan yi passé am na ay cas yu ñuy wax transmission communautaire yu fi feeñ bu baax ci kaw loolu ñu ngi demander population sénégalaise yi ñu respecter bu baax lépp luy mesure prévention collective yu leen demandé bi ñu paree communiqué bi damay jox euh, kàddu gi Monsieur ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur monsieur le ministre Amadou Ba pour que mu jottali leen message yu jëm surtout ci suñuy euh, compatriotes yi nekk bitim réew maa ngi leen di remercier bu baax monsieur le jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala ci bitim réew da ngeen di abonné fii ci Tawfekh Production